Je remercie, en tout cas TFR le fait que nous ñëw fi Nous ay cadre lañu ñu pour tey combat bi dire euh, wax ne éducation nationale pour éducation dans un pays qui est pour suba donc nous avons ci donc 165 euh, 000 masques pour les élèves les enseignants yi communauté éducative Donc, donc mun dire wax la communauté bi moo leen di remercier soo wax communauté vous da syndicat da ngay wax parents d'élèves da ngay wax société civile da ngay wax inspecteur d'académie inspecteur d'éducation de formation donc ñu ngi leen di remercier di leen wax ne que ñun soxla nañu leen en dehors de lii def nañu li ba pare waye comme ñun ñu ngi installé politique éducative du Sénégal et que ñom ay cadre lañ ñoo xam ay patriotes lañu Sénégal lañu gëm lu ñu mënti def fi ci ministère bi bëgg nañu am cet accompagnement di leen wax ne également en tout cas ñun suñu élèves yi suñu enseignants yi ak ñun ñëpp comme bataille bi bataille communautaire la am nañu en tout cas ak ñoom jumtuwaay ñu indi léegi ak ñeneen pour que ñun aussi ñu mën a dem di conscientiser nit ñi di wax ne port de masque bi mesure barrière yi ñun la ak ñoom la pour que ñu mën a gagné combat bi donc sénégalais yi ñoo leen di remercier communauté éducative ñoo leen di remercier enseignants yi ñu ngi leen di remercier di wax ne rek comme ñoom ñëw nañu tey depuis daaw amoon nañu ay partenaires ñu ngi ñaan encore yeneen partenaires ñëwaat parce que école sénégalaise ñun ñëpp a ko bokk sénégalais